ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi nekk ci suratul hadid war a jël tey aaya fukk fukk bi ak ñaar yowma tara almuminina walmuminat yas'a nuuruhum mbokk yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gim ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam dara dajale wu ñu fi lu dul ngir jàng ab téeréem loole di jaamu yàlla gu rëy goo xam ne ku nekk ci ñun waxuma war na koy jéem a saxal waaye war na ca nekk di woote ci misaal semaine bi ñu génn rek am nañu tasaare ay affiche ci biir Dakar di woo nit ñi kay leen ca jam ñaajo am na ndaje mu fay am ci musique pass ba dix mille francs la VIP vingt mille francs la ngir ñu déglu loolu nga xam ne Ibnu Mas'ud da ko doon tuddee kàddug seytaan te mooy musique Ibnu Mas'ud bokkoon ci saxaaba yi gën a dégg téere bu yàlla bi loolu moo tax ba yow ñooñee lam leen jaral te mooy dox lu sori paas lu cher ngir dégg kàddug seytaan yow it war na laa jaral nga dox te woote déglu ji kàddu rahmaan même bu doonte ne ne du tafsir bi sax waaye dañuy ñëw rek daje toog ci kanamu Cheikh Ousmane mu ñuy jàngal téereb yàlla bi wallahi daroon dox ay kilomètres ngir fekke loolu te lu bëri ci sahabatul kiram noonu lañ daan def buñ demee ba daja fenn ñu ñaan kenn ci ñoom mu jàngal leen téereb yàlla bi ñu déglu ko xol ya tooy ñu jooy doogo dem ci lañ leneen lu ñuy jëm loolu moo tax ba ñu ngi ñaanal it mbokk yi nga xam ne ñoom it ñoo koy tasaare te ña nga xam ne yàlla dogalul ñu mën a sol seen dàll di ko fekkee ci biir réew mi ak bitim réew mi yépp yàlla na yàlla subhanahu wa taala ñoom it jàppale leen kon incha allah tey mooy fukkeelu fan ak ñaar ci weeru décembre deux mille vingt deux di to am déet ci weeru janvier deux mille vingt deux di tombé juróom-ñeenteelu fan ci jumada saniya ci mille quatre cent quarante trois su dee Cheikh Ousmane pare na jëlal ñu bind bu njëkk.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فضرب بينهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ne yawma tara almu'minina yas'a nuruhum bis bi nga xamee ne nii day da nga gis julit ñi mi ngi daw ca la nga xamee ne nii ma ngay daw seen leer ya ci seen kanam ya ak seen ndeyjoor ya la nga xam ne moom lañ leen di bégale tey jii day mooy àjjana joo xam ne dana daw ca suufam ay dex ñu daal di fay sax ba faw loolee day moom mooy texe bi gën a màgg ci texe yi mooy bis bi nga xam ne naafiq yi daañu wax ña nga xam ne naafiq yu góor yi ak yu jigéen ya daañu wax ñi nga xam ne dañoo gëm ay waay yéen xool leen ñu waay xaar ñu ngiree ñu niitoo ci seen leer gi mi ngi noonu bu ko defee ñu ne leen ay waay dellu leen ci seen gannaaw ngeen sàkku fa la nga xamee ne nii mooy ak leer ci noonu la ñuy dóore ca seen diggante li nga xamee ne nii benn miir lay doon dañu nekk ca miir boobee la nga xam ne mooy biiram ba yërmande lay doon la nga xamee ne nii dafa nekk ca bitteem ba ca wàllu googee mbugal ma moo fay nekk su ko defee ñi ngi leen di woo naan leen ma ndax ñun nekkuñu woon ak yéen ñu ne aha kay waaye yéen day da ngeen fitnaaloon seen bopp da ngeen nekkoon di xaare ci ñun la nga xam ne mooy wëlbatikook jamono da ngeen nekkoon di sikki sàkk ba mu wor leen mu nekk di leen wor mébét yi ngeen doon mébét ba baa muy dikk ñeel leen lii nga xam ne mooy mbiru yàlla ci noonu la leen woore ca yàlla la nga xam ne mooy workat ba xam leen ne est ce que maa ngi wax arab bi sax waaw ala kulli xaal suñu boroom subhanahu wa taala kon mu ne wa fa duriba dóor nañu baynahum ca diggante naafiq yi ak julit ña bi suurin ca benn miir lahu baab boo xam ne nii ñeel na ko ab bunt baatinuhu la nga xam ne mooy ca biiram ba rahma yërma fiihi rahma yërmaana fa nekk wa zaahiruhu la nga xamee ne ca gannaawam ga min qibalihi al azab ca wàllu googee day mbugal ma moo fa nekk su ko defee naafiq yu góor yaag yu jigéen ya yunaadunahum ña ngay woo ña nga xamee ne nii ñooy ña gëmoon naan leen alam nakun maakum ama ndax ñun ànduñu woon ak yéen qaalu bala ñu ne aha kay walakinnakum fatantum anfusakum waaye yéen day da ngeen fitnaaloon seen bopp wa tarabbastum da ngeen nekkoon dañuy xaare ngir musiba dal ñu wartabtum da ngeen nekkoon ci ak sikk sàkk wa gharratkumul amaniyu mu nekk di leen wor lii nga xam ne mooy seen mébét ya hatta jaa amrullah ba baa muy dikk lii di mbiru yàlla wa gharrakum billahi algharur mu wor leen ci yàlla warkat ba di sheytaan fal yawma laa yuqaz minkum fidya tey jii day duñ jël ci yéen benn jot wala min alladina kafaru duñ ko jëlit ci ñi nga xam ne dañooy weddi ma'waakum naar seen dalwaay mooy sawara hiya mawlaakum moo leen di féetewoo wa bi'sal masir aka bon koo xam ne day mujje sawara mi ngi noonu mbokk julit suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom moo ñu bind indi ñi ci kaw suuf bind googu nga xam ne bind nañu ko bis dana ñëw ñun ñépp mu faat ñu waaye bis dana ñëw ñun ñépp mu dekkal ñu suñu dekkalee dana boole julit ña ak yéeféer ya ñu daldi ànd suñu borom yàlla may leen ak leer naafiq ya daldi kontaan ne ah ndaka kat ñun lañ doon def ci àdduna am na njëriñ suñu borom yàlla bàyyi leen ba mu soob ko mu daldi leen di teqale jiital julit ña bàyyi naafiq yi ca gannaaw julit ñi mu may leen la nga xam ne seen leer gay dem jóge ci seen kanam ngir ngëm ngëñ gëmoon ak seen ndeyjoor ngir jëf yu baax yéen jëfoon ci seeni téere julit ñooñu suñu borom mu ne bu keroogee dañ leen bégale aljanna ca loolu moo tax ba boo delloon suratu tahrim suñu borom yàlla dañu fay won ni keroog ba muy fay leerug naafiq ya ñu dellu ci lëndëm gu taratar julit ña teqalikoo ak ñoom nekk yor seen projecteur ya keroog la julit yi di ñaan naan rabbana atmim lana nuurana waxfir lana ey yàlla mottalil suñu leer leer gi ba tabbal ñu aljanna bu ko reegee jullit bu nekk sa ngëm nam tolloon ak sa jëf nam rafete woon noonee la sag leer di demee dana am ñoo xam ne seen leer daanaka ci seen tànk rek lay yem am ñoo xam ne seen leer dana dem dix mètres ñii cent mètres ñii seen leer di dem ba fu yàlla xam suñu borom bégal leen àjjana moo leen di xaar te mbokk xam ngeen ne xéewal soo yégee na da nga ca jëm rek loolee da lay bégal lool boo demoon tey jii xale yi def ay examen une fois que nga réussir rek loolee da lay kontaan loo ngiree xaal ba mu la mën a yóbbu université la wala leneen lu mën a doon amma nag mbég gi gën a rëy ci mbég yi mbokk moom mooy aljanna ba nga xam ne ma nga fay daw dex ya ca boo fa duggee doo fa génn ba faw mboolem xéewal yi nekk ci àdduna réussir nga ba nekku professeur général président milliardaire lu mu mën a doon am na fu mu yem amma aljanna moom xéewal la gudul jeex ba faw moo tax borom bi ne xam leen ni dëgg-dëgg texe mooy fexe ba tabbi aljanna yal na yàlla yombal ko ci ñun borom bi nag nee na bu keroogee la naafiq yi di woote ñeel ña gëmoon naan leen ay waay kaay leen xaaruñu wëlbatiku leen ci ñun ngiree ñu mën a jël ci seen leer gi ba mën a xam fu ñuy jaar su ko defee ñooñee tontu leen da leen dellu leen seen gannaaw ngeen wuti fag leer ca loolu mbokk mooy ñan da ngay gis jëkkër juy woo soxnaam baay buy woo doomam doom buy woo yaayam ku nekk ka nga xam ne da ngeen a nekkandoo woon moom mu gëm yow nga nekk naafiq da nga nekk di ko woo waaye keroog suñu borom ak noonoo gu rëy lay def diggante ña ragaloon yàlla ak ña weddi woon yàlla mi ngi noonu jamono boobee ñuy nekk di dàgg sante suñu borom yàlla daal di dexale benn miir seen diggante miir boobee la féete ca biiram fa la jullit ña nekk yërmaande yàlla ànd ak ñoom la féete ca gannaaw mbugalum yàlla moo fa nekk commencé mbugal la nga xamee ne nii moom mooy yéeféer yi su ko defee naafiq yi daañ woo ña nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ey waay yéen ndax du ñoo gi yéen ñoo doon ànd ca jàkka ja ca jihaad ba ca aj màkka ba naam mbokk naafiq mooy kan naafiq mooy ki nga xam ne gëmut yàlla gëmul àllaaxira waaye intérêt àdduna gis na ko ci ànd ak jullit ñi looloo tax dañ koy gis ca jàkka ya jihaad ba aj màkka yi yépp loolu di daan am ndax ñun nekkuñu woon ak yéen ñee di wax ndax du yow maag yow ñoo doon sëy ndax du maag yow ñoo bokkoon bureau ndax du ñun ay ay dëkkandoo la ñu woon daawuñu teqale ko guddeeg bëccëg su ko defee jullit ñi daal di leen wax aha kay waaye yéen day da ngeen a fit laa loon seen bopp bokk doomu aadama bokk na li muy fitnaale boppam mooy jël àdduna jiital ko ci diineem da ngeen fitnaaloon seen bopp da ngeen taxawoo nit di bëgg ñun jullit ñi musiba dal ñu bañ génn ci suñ diine ji mel ne yéen tarabasuuna bikum dawair da ngeen nekkoo nit di sikk sàkk ci daje bi suñu borom yàlla digg ci ab téeréem ca loolee mbokk jullit da ngay gis xatta ay ñu ñuy tuddee ay jullit ay waaraatekat di ci am fit bay dem ba naan ah xam naa sawara daal bi yàlla di déggee mooy rek nit ñi bon ne buñ ñëwee mu yedd leen xas leen ne leen waaw dem leen ajjana mbokk loolu ak kéeféer la ku koy wax kéeféer la képp ku sikki sàkk ci sawara sawara mooy sa wàccuwaay mi ngi noonu noonu it la leen ware woon ay mébét te mbokk la chaque année bokk ne li gën a yàq diine nit yi tey mooy bari lool ay mébét imma mébét yi ci àdduna jàpp na yow da nga fexe ba dajale àdduna soo paree nga tuub wala mébét ya nekk ne yowmal qiyaama am nga yaakaar boo xame ni nii yow loo mën a nekk it soo demee yaakaar boobu moom boo dajeeg moom dana dem ci yàlla daal di lay ñaanal ak ràmm borom bi nee na ci loolu ngeen nekkoon ba baa mbiri yàlla dikkal leen ca mooy ak dee ci lii ngeen nekkoon mu wor leen ci yàlla workat bu mag ba ca mbokk mooy seytaane lépp loo xam ne dafay sànq doomu aadama ci seytaane la jóge ne woon na yàlla danaa toog ci sa yoon bu jub bi danaa leen taaralal mi ngi noonu danaa leen xiirtal ak xiirtal borom bi subhanahu wa taala nag ne bisub tey bii day du ñu jël benn njot ci yéen naafiq yi duñ jël benn njot ca la nga xam ne mooy yéeféer yi ca mbokk réglu àdduna su ma nga dégg ñu ne waa CREI yi jàpp nañ benn kilifa jàpp ci koso bi gannaaw ba ñu ne daa joxe caution temps pour ñu bàyyi ko suñu borom yàlla nag mën a àllaaxira amul caution bu ñuy joxe la nga xam ne mooy seen wàccuwaay yéen naafiq yi ak yéeféer yi moom mooy sawara mooy seen wàccuwaay ca loolee day aka bon la nga xamee ne nii moom mooy ak mucc mi ngi noonu yal na yàlla musul ñu cig na fiq bismillah cheikh ousmane
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne alam ya'ni lillazina amanu ama ndax jotagul ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm ci muy toroxlu seen xol ya ñeel fàttalikug yàlla naam an taxsha qulubuhum ngiree muy toroxlu seen xol ya li zikrillah ci fàttalikug yàlla wa ma nazala min alxaq ak la nga xam ne daa wàcc ci dëgg wala yakunu ka lazina utul kitaaba min qablu ñu bañ a mel ni ña jotoon téere ba jiitu leen fa taala alayhim al amad ñoom day daa yàgg ci ci ñoom dig ba nga xamee ni nekkoon na sori waay wàccu téere ga fa qasat qulubuhum noonu la dëgëre seen xol ya wa kasirun minhum fasiqun la ëppoon ca ñoom doon ñu génnuk topp i'lamu anna allaha ewaay xam le ne yàlla nag moom yuhyi al arda ba'da mawtiha moom mooy dekkal suuf gannaaw ba suuf deeyee qad bayyana lakum al ayat ñun day leeral na ñeel leen aaya yi la'allakum taqilun ngere ngeen doon ñuy xellu innal musaddiqiina wal musaddiqaat ña nga xam ne dañuy sarxe ca góor ña ak jigéen ña wa aqradu llaha qardan xasana ñu lebal yàlla bor bu rafet yudaafu lahum ñoom day dañ des na ful ñeel leen wa lahum ajrun karim te dana leen ñeel pay goo xam ne gu màgg la wallazina amanu billahi wa rusuli ña nga xam ne ñoo gëm yàlla ak yonentam ulaika humu siddiquun ñoo ñooy day ñooy ñu dëgguña wa shuhadaau inda rabbihim ña nga xam ne dañoo shahid ñoom day ci seen boroom lahum ajruhum wa nuuruhum dana leen fa ñeel seen pay ak seen leer ga wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ña nga xam ne nag ñoom dañoo nekk yéeféer weddi suñuy aaya ulaika ashaabul jahim ñoom de ñooy ñooñi sawaras jahim yéen mbokku jullit ñi lañu xam ne diine lislaam bokk na lu muy yar ak njabootam mooy ñu yëg màggaayug yàlla yëg gi ñu yëg màggaayug yàlla loolu moo leen di yóbbu ñu doon ñuy toroxlu ñeel yàlla yëg seen responsabilité duñu bàkku duñu xeeb kenn duñu tooñ kenn luñ mën lu baax ñu koy def ngir ragal borom boobee ak ragal a ñàkk ay xéewalam ak ragal a tàbbi ci mbugalam looloo tax ba saxaaba yey dund la yàlla wàcce woon aaye yi na ma nax yëg seegul ci jullit ñi seen xol yi di toroxlu ngiri fàttaliku ga ñuy fàttaliku yàlla ak li yàlla wàccee muy alquran mbokk zikrullah ak jàng téereb yàlla dafay war a toj xolub julit ngiree mu toroxlu ñeel yàlla ku mel ni ibnu mas'ud daana wax ne ewaay fi alquran commencé wàcc ak fi ñu yàlla yeddee ak a jegeyoo waaye xamal ni borom boobu subhanahu wa taala daf ñoo tere ñu mel ne yahudi ak nasaraan yi mbokk yahudi ak nasaraan yi yàlla daa wàcce ci ñoom téere bu bawoo ci moom muy ay waxam di tawraat ak injil seen maam yëkk a jëkk a jël gëm ko topp ko waaye bañ demee ba doom yaag sëdd yi ñëw ñu jàppee ko ay léeb ak i légende mooy faaleetuñ ko tey ji it dañuy gis ne mbokk la ëpp ci jullit ñi donte ne ñi ngi jàngal Qur'an da nga dégg place sangam wàcce nañ fa téeméeri kaamil ñi ngi koy def ci armoire yeeg oto yeeg yépp waaye néew na téere bi yàlla boobee mu doon loo xamee ni nii lu ñu xam la xam tëkku yi ca nekk ba loolu di leen jooyloo loolee lu néew la mbokk suñu jamono yi tey li suñu borom yàlla wax ni ñu bañ a mel ne ahlul kitaab benn aaya la boo xam ni fondement la yow jeune nga bàyyi xel ne suñu borom day bëggul julit di nu roog yahut ak nasaraan donte ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon nañu da ngeen mas a topp yahudi ak nasaraan yi lu ñu def ngeen def ko buñ duggoon ci paxi mbëtt sax ngeen dem dugg fekk leen fa loole ngalawaay ñu bàyyi ci xel bu baax yow julit da nga am sa yoon am sa melokaan da nga war a gëm ne sa yoon a gën ci yoon yi sa melokaan a gën ci melokaan yi da nga war a gëm ne keneen ku dul yow ci riir la nekk loo man nga woo ko naxante ko laayu ko biir ngir sauver ko waaye waroo dem mukk naan da nga koy topp wala di ko rey laa yàqunu ko lazina utul kitab min qablu borom bi nee na ñoom day ba mu yàggee seen xol ya daa wow ca loolu it mbokk julit ku nekk war naa xool lan mooy dox di lan mooy dal doomu aadama ba xolam di wow bokk na ca toppaay bànneex bokk na ca la nga xam ne mooy mébét yu dul jeex wax yu dul jeex déglu lu amul njëriñ seetaan yu amul njëriñ alxëf la loolee mbokk day wowal xol te loolu ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk mi ngi noonu fa waylun lil qaasiyati qulubuhum min zikrillah alkaa nga ñeel ne koo xam ne xolam ba amul benn jeexital ci tudd yàlla amul benn jeexital ci njàngum alquran suñu borom nee na bañ melee noonu dañoo mujj doon rek ay fasiq na am ba ko julit doomu aadama bi du baax lu dul xolam moo baax xol bu ragal yàlla moo lay saxal ci diine amma bu xol ba yàqoo njaawloo du problème riba du problème ah tooñ du problème bàyyi julli du problème maadaama xol ba yàqu na borom boobu nag subhanahu wa taala ni xam leen ne yàlla day mooy dekkal suuf gannaaw ba mu deeyee leeral naa samay aaya ngir ngeen xellu na am yow mi sikk sàkk dee dekki am na ca nam amee woon jamono yonent yi nu ko raw la amee suñ jamono yi tey tey ñiy dund ci planète terre mën ngaa wax ne presque lu jege deux tiers yi gëmuñu ne bu ñu dee dañ leen di dekkal borom bi subhanahu wa taala nag di leen tontu ndax ñoom ñëpp seen lay mooy nit ki bu dee day doon poussière naka lay dekkiwaate borom bi mu ne xool leen suuf si woo koŋ may wàcce ndox dekkal ko ngiree ngeen xellu waaye yewit julit lii dana la jàngal ci ne war ngaa ñaan yàlla it di dekkal sab xol mbokk ab xol lan moo koy dekkal mooy di jege place yi waaraate ya di jàng alquran jéem koo comprendre du ko settantal waaye di wéet sa diggante ak sa borom di xalaat mooy lu néew lu jamono yi tey def xale yi miin internet bi am na benn vidéo bu am solo boo xam ne dañ ko doon tasaare tudde ko isole-toi isole-toi ca mooy ku nekk war nay am benn wéetaay bi mu toog digganteem ak boroomam di xalaat waa man tey su ma dee woon nag su doon tey laa dee lan mooy xaar ci yàlla di xalaat sama dund gi ci lan lay war a jeexe di xalaat waa man su ma demee suma bàmmeel man kot loolee mbokk yonent bi alayhi salaam nee na képp koo xam ne yaa ngi wéet di xalaat sa digganteeg boroom ba ay rangoon tuuru sa bët yowmal qiyaama da nga bokk te ñi ñuy keral suufu keru arsh yal na yàlla boole ñu ca loolee mbokk kon mooy dundal xol ku nekk ci ñun war cee bàyyi xel borom boobu nag waxtu it lenn loo xam ne dana dundal xol mbokk lépp loo bëgg ci àdduna ca bàyyi ko ci yàlla tax yàlla remplacer la cofeelu bëgg yàlla looloo tax borom bi ne ñi nga xam ne dañuy sarxe ci góor ñi ak ci jigéen yi lebal yàlla bor bu baax doomu aadama nga am alal joo bëgg lool xaalis liquide la loolee ab oto la loolee ab tool la loolee kër la loolee mbubb la loolee lu mu mën a doon loo xam ne bëgg nga ko lu baax la nga lebal ko yàlla jalla wa ala nekk contraire ka nga xamee ni nii fasiq bi la li bari ci doomu aadama yi dañuy dajala alal ngir sakku merum yàlla yow na nga am alal ci lu dagan joxe ko yow ngir am ngërëmal yàlla xardan xasanan du mën a nekk lu dul ci ñaari mbir yi mooy alal ji ngay joxe di alal ju dagan joo moom ca bi nga koy joxe yàlla rek a tax alal ji bu dee ni mu ñëwee ci yow daganul nga joxe ko ca yàlla tax doo ci am dara kee jël riba PMI jaay sangara cagatu ba pare wëlbati ko naan da ciy sarxe yàlla bëggul alal boobu ka nga xamee ni daa dem tabax jàkka tabax daara tabax nangam ca dara taxul ngir puukariwu yàlla bëggul loolu kon qardan xasanan mooy alal ju dagan ca tey alal joo xam ne da nga koo joxe ci yàlla tax suñu borom mën nañu mel nii day danaa leen fulal seeni pay ca it la nga xam ne nii moom mooy pay gu tedd mi ngi leen di xaar mooy aljanna bi nga xam ne moom day gën a neex ba faw borom boobu nag di wax ni ñi gëm yàlla ak yonentam ñooñu day ñooñu dëggu ñi gëm yàlla ak yonentam looloo tax ba mbokk jullit xamal ne ki weddi benn yonent moo ki weddi yonent yépp a yem kazzabat qawmu nuuhin al mursalin premier yonent bi yàlla yónni muy nuux xeetam bañ ko weddi yàlla def ne xeetu nuux weddi nañ yonent yépp ndax yonent yi ñoo bokk mission looloo tax képp koo xam ne dañu naan kii juif la kii chrétien la kii nangam la ci gëmul yonent yàlla muhammad xamal ne mbokk kooku bokkul ci min allazina amanu abadan borom bi nee na ñi gëm yonent yi mboole seen ñooñu ñooy as-siddiquun ñooñu ñooy ñu dëgguña ña nga xam ne it mooy ay shuhada ña ca gën a kawe mooy ñi dee ci toolu jihaad joxe seen bakkan ca yàlla tax ñooñu ñooy ay shuhada doonte ne yàlla baaxe na yonent bi dana am ñum yëkkate ay grade shuhada ci xeetam doonte ne deewuñu fi sabilillah bokk na ca ña dee ca lakk ya ña dee ca lab ga ña dee ca tremblement ya ña nga xam ne dañ doon défendre seen alal ba dee seen bakkan ba dee ña nga xam ne biir moo leen rey jigéen ñu doon wasin am na ñu bëri ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim daañ leen yëkkati ci martaba shuhada waaye shahid moom dëgg-dëgg shahid mooy ki doon jihaad te yàlla tax dee ca toolu jihaad ñooñu ñu ay shuhada borom bi ñu mel nii day seen pay mi nga leen di xaar ca yàlla jàngoon nañu sànq ne jullit ñi seen leer ma nga leen di xaar di jaar seen kanam ak seen deyjoor mu ne ñooñu it la nga xamee ni nii mooy seen leer ma nga leen di xaar mooy ñi gëm yàlla ak yonentam as-siddiqun ash-shuhada lahum ajruhum wa nuruhum leer goo xam ne nii du fay ba faw amma nag ñi nga xam ne ay yéeféer lañu muy benn doyoon na rek musiba nga weddi yàlla walbatiku it ne aaya yàlla yi lépp dara du ci du ci dëgg borom bi subhanahu wa taala nee na ñooñu day ñooy ñooñu jahim jahim benn tur la ci turu sawara yal nañu yàlla musal ñi bokk ci ashaabul jahim
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم barakallahu fikum suñu boroom jalla waala mu ne i'lamu annama alxayaatu dunya e waaye xam leen ne dundug àdduna gii ngeen nekk laibun fa dong moo ko fees wa lahwun ak lu leen di itteel seen xol ya wa zinatun akub taar wa tafaaxurun ak puukarante baynakum ci seen diggante wa takaasurun fil amwaali wal awlaad ak ëppalante ci alal ak doom kamasali xayis waaye melul rek ne xanaa ab taw boo xam ne ajabal kuffaara nabaatuhu yéem na baykat ya lii di lii di gàncax ga mu génne suma yahiiju gannaaw ba mu daal di lax fa taraahu musfarra nga gis ko mu nekk loo xam ne mbopp lu ñu joonal la suma yakunu xutaama gannaaw ba mu nekk mbopp wa fil axirati azabun shadid dana nekk ca àllaaxira nag lii di mbugal mu tar wa magfiratu min allahi wa ridwan ak njéggal gu bawoo ca yàlla ak ngërëmam wa mal xayaatu dunya mu ndax nekkul dund ak àdduna gi illa mataaul xurur lu dul bànneex buy waraate rek saabiqu ila magfirati min rabbikum jëkkante leen jëm ci seen njéggalug boroom wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ard ak àjjana joo xam ne yaatuwaayam mi ngi mel ne yaatuwaayu asamaan yi ak suuf uiddat lillazina amanu billahi wa rusuli ñi ngi koy waajal ña gëm yàlla ak yeneen tam zalika fadlullahi yutihi man yasha lii day mooy ngëneelu yàlla dana ko jox ku ko neex wallahu zul fadlil azim yàlla day mooy borom ngëneel yu màgg ya mi ngi noonu mbokk jullit adduna bi ñuy dund suñu borom yàlla moo ko moom mboolem li fi nekk moo ko fi def ci li la tiim ak li nekk sa suuf moo li fi indi ci diir ba ka soob génération par génération kon ku ko mën a xam rek yàlla la ko gën a xam ala yaalamu man xalaq mu ne nag xam leen ni adduna bii day li fi fees mooy am po na am mbokk julit su doon da ngaa jóge beneen planète nga ñëw di xool doomu aadama yi da ngay jàpp ne foo rek moo taxoon yàlla bind leen bal boo amoon jot rek toog ci ab télévision di seetaan da ngay foog doomu aadama yi foo moo tax yàlla bind leen mbokk foo mooy lan mooy lépp loo xamee ne nii doomu aadama yaa ngi cay nekk di ca yëngatu ci say cër ca loolee di dox sa diggante ak fàttaliku ko sa boroom lum mën a doon am polo na doon dañ koy tuddee jeu dañ koy tuddee ak lum mën a doon rawatina nag mbokk jamono ji ñu dund nga xam ni tubaab yi not gi ñu not indil nañ ñu ay mbir yoo xam ne seeni mbiri bopp la mbokk lan mooy coupe d'Afrique lan mooy coupe d'Europe lan mooy coupe du monde lan mooy FIFA loolee ndax suñu maam yi ñoo ko créé la wallahi tubaab bi moo ko créé ñu jël ko tasaare ko ci àdduna bi ci loo xam ne plan la yeeñ bañ ko tëralee kenn xamul kañ la woon ca yahud yi nga xam ne jàpp nañ ne dañu war a coloniser àdduna yépp ceete leen lañu gis mooy fokk jeunesse mondiale bi yépp ñu yóbbu leen ci am po xiirtal leen ci am po ñoom seen doom yi ñoom ña nga nekk ci université yi gën a kawe lépp luy ay prix Nobel ñoo koy jël bu ko defee doomu ña nga xam ne ni adduna bi tiers monde ak lu kenn xamul ñu yóbbu leen ci po yoo xam ne ca la ñu nekk di yuuxu di noonoo temps bu dul jeex ñu def ko ca mbokk da ngay xool un match de football 90 minutes plus les les euh, la nga xam ne mooy mi-temps yi plus la nga xamee ne nii moom mooy prolongation ya boo ko boolee dana jege à peu près deux heures de temps deux heures de temps yooyee laajal Cheikh Ousmane deux heures de temps ndax mënuñu cee jàng juróom-ñetti isib mi ngi noonu yow doomu aadama nga jël yow doomu jëlit plus de juróom la nga mënoon toog juróom ñetti isibi alquran nga mën koo jàng nga jagleel ko ñaar fukki ponkal yu soli culotte tim ab ab ab balub këwsu ku dóor jox sa morom ku dóor jox sa morom bu dugg cay écart ñu ñëpp ñu ànd yuuxoondoo mbokk lii ban njëriñ la am c'est des conneries en répétition un match de football égale un match de football différence bi du dara su ko defee ñu ne pays sangam gagné na gagné ne ban njëriñ la am si tey Sénégal jëloon na coupe d'Afrique mbokk ban njëriñ la ñu amal combien de fois la Argentine jël coupe Brésil jël coupe yeneen dëkk jël coupe lan la leen jëriñ loolee kon ay nax lañ leen naxe galawaay yéen ndawal jullit ñi bàyyi leen xel loolu xool la nga xam ne moo leen di jëriñ seen diine ak seen adduna ngeen jeexal ci seen temps ndaw day dee mag day dee maa ngi fàtte am na benn ndaw bu ñuy wax Mouhamad Diallo Ibrahima Diallo frère am na day ñëw fii mu ne dafa dee accident ku bëggoon alxuraan ak sunna daal ñëw ci jataay yi yal na yàlla jéggal ko yërëm ko ndaw day dee mag day dee temps bi la yàlla may xamoo ci kañ lay jeex kon xoolal loo koy utiliser lan moo lay wóor ne yow une semaine bi moo la dese lu lay wóor ne tey benn jour moo la dese kon laif moo fi nekk gannaaw ba lëxwu lëxwu ci xol lay nekk mi ngi noonu laahiyatan qulubuhum lépp lu fees sa xol ci jigéen ñi nga bëgg alal ji nga bëgg lépp lu fees sa xol ba fàttaloo la zikrullah rek lëxwu la loolu tax borom bi mu ne laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum kay nekk ci commerce am jaamu yàlla la lu baax la mais commerce ba bu ko yóbboo ba julli jot julliwul fàttaloo ko yàlla loolee lëxwu lay doon borom bi subhanahu wa taala it noonu la waxee ca la nga xamee ne nii mooy ab taar doomu aadama yi li leen sonal du nécessité li leen sonal mooy taar ku nekk bëgg nga sa kër a gën a rafet yépp sa oto moo war a gën a rafet yépp sa col moo war a gën a rafet yépp taar boobee ci la ñuy xëccoo rawatina suñu mbokk jigéen ñi ak mooy la ëpp li sonal nit ñi mooy taar gannaaw ba tafaaxur tafaaxur man duma sa moroom man nangam piir la wax sa race ba nga jóge tafaaxur ci alal tafaaxur ci la nga xamee ni mooy ay diplôme tafaaxur ci lu mu mën a doon mbokk loolu moo fees àdduna borom bi subhanahu wa taala ne ëppalente ci alal ak doom ku nekk jàpp nga ne ne loo mën a am gisuloo ko toujours yaa ngi xool ka nga xam ne moo nekk sa kanam loolu tax da ngay gis benn waay boo xam ne lu ne am na ko ci àdduna heure boo la jeg moom mi ngi jàmbat mi ngi jàmbat loo tax parce que dafa taxaw xool boppam par rapport ak ña ko ëppale ca na am mbokk julit àdduna loo am gis ku nekk sa kanam loo am rek gis ku nekk sa kanam loolu tax yonent bi alayhi salaam lu mu ñu doon ndax mooy al ghina ghina nafs ki woom le mooy ki bakkanam woom le waaye woom le du bëri le alal loo bëri la bëri le yaa ngi bëgg loo xam ne ni jotagoo ci bëri le ci ay doom na am bu jëkk la nit ñi daan puukare woo mooy borom kër bu toog fukki ponkal wër ko kenn du ko yem léegi nag tubaab bi moom nee na non loolu ay njaa àll la ay doom doom doom doom juróom yi doom juróom benn doom nekk mel ni ay géniteur ay fas non non non non non non loolu loolu baaxut tax leen ba yem ci ñaari doom maximum ñetti doom mi ngi doon ñaari doom ñetti doom matti du may famille nombreuse kon puukare bu lu muy fan lay demee mooy doom yi nag da ngeen leen jàngal li nga waroon a yore fukki doom sa benn doom bi investir ko ci moom gars yi loolu la ñuy def léegi de ay gis koo xam ne benn doomam li mu ci investir bàyyam ba amoon ñaar fukki doom un dixième ba investir ko ci ñoom jël doom bi yóbbu Canada yóbbu Amérique di ko fayal ay millions par an ngiree mu am diplôme yu gën a kawe ana diineem sa yónni wu ci à l'âge de 18 ans 19 ans nga mbaq Amérique ni Moscou feneen ak feneen fexeel ba mu nekk ca docteur yu gën a kawe loolee mbokk mooy la nga xam ne moo am ci àdduna bi borom boobu nag subhanahu wa taala ni xam leen ne dunduk àdduna gii day loolee suñu borom wone dafa mel ne rek gàncax goo xam ne dafay naat ci tool baykat bi xool tool bi kontaan lool waaye balaa yàgg mu daal di lax doon mboob doon daal di naaw ca mbokk dunduk àdduna mi ngi noonu borom bi nee na nekkul lu dul loo xam ne ni rek day naxaate na am day naxaate tey jii da ngay xool waa ji nga xamee ni nii dañ naan moo moom immeuble yi moo moom oto yi moo moom lii moo moom lii bis ñu ne dee na dee na léegi gars yi àdduna buy buy génn àdduna lu muy yóbbaale perkaal bañ koy lëmësee du doon sax léeg-léeg ci xaalisam keneen na koy joxe ndax fa la yem ñu gas suuf daal di ko ciy suul waaw léegi daraja ya ana daraja ya alal ja ana alal ja mbokk loolu kon àdduna dafay na xaate te suñu borom mu ne nag soo génnee àdduna ñaar ma nga lay xaar benn mooy la nga xamee ne nii mooy mbugulum yàlla mu tar su dee ne àdduna itteloon na la ba nga fàtte sa boroom bu doon te ne nag pesé woon nga àdduna xam ne jaaruwaay la boo war a jaar ngir sàkku sa ngërëmal boroom la lay teeru mooy njéggalu yàlla ak ngërëmal yàlla yal na yàlla defal ñu ko moo tax suñu borom woo borom xel yi ay yéen borom xel àdduna koo gis ma ngay jëkkante waaye yéen jëkkante leen ci lu leen di jural seen ngërëmal boroom seen njéggaluk boroom te njaamu yàlla yépp day jur njéggaluk boroom jëkkante leen ci julli ya te jàkka ya te premier sàppe ya njàng alxuraan ya naafile ya ku man demal aj demal umra lépp loo xame ni nii ak jaamu yàlla la maxfira la lay jural bu bawoo sa boroom ca heure boo demee bay génn àdduna am sa njéggalu boroom la cay tege mooy aljanna lan mooy ajjana ajjana mooy loo xam ni yaatuwaay ba ma nga mel ne yaatuwaayu asamaani ak suuf rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne bokk na ña gën a suufee lu leen yàlla may ci ajjana koo xam ne mën na toog di xool doxu ñaari junni at ci nguuram ni muy gisali nekk ci kanamam noonu lay gisale gën a sori lépp mu nekk ci nguuram te ñooñu mooy ñi gën a suufee ca la nga xam ne mooy daraje ajjana ya noonu nag lay demee ba nekk nag téeméeri daraja yàlla na nga ko jagleel jaamam yi nga xam ne nii moom dañoo am la nga xam ne mooy ngërëmam borom boobu nag subhanahu wa taala ne ajjana ngoog waaju la moo ko lu dul ñi gëm yàlla gëm yenenti yàlla waaye nag ngëneelu yàlla la yàlla koy jox ku ko neex ca mbokk julit ñaar la julit di boole def sa kemtalaal kattan ci jaamu yàlla yi daw tere yi sa kemtalaal kattan ca bañ a bakku bañ a puukarewu xamal ne ajjana kenn du fa dugg lu dul ci ngëneelu yàlla waaye nag da nga koy sabablu doo toog rek ne yàlla baax na waaye doo bàkku it jàpp ne man mii day ah li ma def yeyow na ajjana laa wallahi da ngay def sa kéemtalal kattan yaakaar nag la nga xam ne mooy ngëneelu yàlla yàlla moom mooy borom ngëneel yu màgg ya looloo tax mbokk suñu borom lii la ñu woow ngalla waaye su xol bi bu ci def mukk ne abubakar ibnu saddiq laa yaakaar mu dugal ma ajjana tey na moom omar ibnul xattaab laa yaakaar mu dugal ma ajjana kay na man yeneen ci diw yaakaar mu dugal ma àjjana mbokk àjjana këru gi yàlla la moo fay dugal ku ko neex am déet moo tax mu ne lii ngëneelu yàlla la yàlla koy jagleel ku ko neex yal na yàlla jagleel ñu àjjana jagleel ko suñuy njaboot suñuy waajur ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal julit am na droit fajo lépp loo xam ne ay sunguf la ak i reen su dee daa yem ci sunguf ak i reen sunu maam yi dañuy bañ ba ne garab dañ naan garab garab goo gis rek presque am na lu muy faj donc ci garab yooyu la ñuy jël di defar ay sunguf ak i reen loolee moom bu dee dara àndu ca su boobaa da ngay gis ne dagan na jullit fajoo ko bu dee loolu rek ca la yem non amma ki nga xam ne dafay doon bu jullee fajar ba pare moom day nekk di répété fatiha kese loole lan mooy nekk jubluwaayam suñu gisee ne moom day daa mënul lu dul fatiha kese loole moom kenn du ko ko mën a tere waaye bu dee ne day am na leneen loo xam ne nii mën na ko ci téereb yàlla bi dañ koy wax la gën day moom mooy mu jàng fatiha ak leneen loo xam ne nii ci téereb yàlla bi la amma nag ndaxte loolee moom mu nekk di ko def dañu koy jàppe ne biddaa la dana jafe ñu tudd ko lu tax mooy abi sayd al xudri ba mu ñëwee ci yonente bi alei salatu wasalaam da ko man di dama am dëkkandoo bu ma jaaxal mu naaw mu ne moom bu taxawee di naafilu guddi moom xul walaaw ahad rek lay tari mu ne ko mbaadu da nga koo xeeb xul walaaw ahad dafay wecci ceeru alquran loolee kon dañ koy wax ne la gën daal mooy mu def la yonente bi ak i sahabaam ak loo xam ne nii musuñu gis keneen ku ko def ku dul moom ca mooy bu jàngee fatiha mu xool leneen lu dul alquran mu koy jàng bu dee répété xulwa yi moom loolee yonent bi alayhi salatu wasalaam saxal na ko wallahu subhanahu wa taala alam naam même bu dee ci yéefar lu ko jëlee baax na waaw sunguf bi ngay bi ngay dem di fajo mu ne ndax bu ko jëlee ci sëriñ Tariyax baax na même bu ko jëlee ci yéefar baax na charte ah waaw waaw comprimé yi ñuy naan moog sunguf yee yem rek c'est la même chose yéefar yi ñoo koy defar problème bi kay mooy na xool kii sëriñu Tariyax la baa boole wu ca lenn ca Tariyax ga ma jàng mais daal bu dee ne moom lii feebar la xam nañ ne sunguf bi moo koy faj sunguf kese la ko jox amul problème ay reen la jël jox ko xo na ko xoojal naan amul problème bu dee ne nag dañ ca boole leneen lu dul loolu su boobaa dañuy xool lañ ca boole ndax islam dana ko nangu du ko nangu waaye bu dee faju moom mënees na koo jëlee ci ko baax mënees na koo jëlee ci yéeféer sax wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam wala kulli xaal ci li ñuy wax ci jigéen bu bënn bakkanam jigéen am na droit taaroo lu ko neex ba mu des taar boo xam ne da nga cay nuru nurulu ay yéeféer su dee ne da nga cay nuru nurulu ay yéeféer su boobaa islam da koy tere te bu ñu xoolee suñu cosaanu maam ak suñu cosaanu diine xawma ci ñoo xam ne dañ doon nekk ci réew mi fii di bënn seeni bakkan su dee ne loolu lañ koo doon nekk ci seen cosaan kenn mun leen ko tere mais lu bëri ci xale yu jigéen ñi koy def dañ koy roye ci indu ya di ko roye ca artistes yi ñuy gis ca internet ya su boobaa loolu yi dañ leen koy tere rawatina nag kanamu jigéen borom xam-xam yi dañ ca am wuute ndax am na droit génne ko góor ñi di ko gis am amu ci droit amma nag bu dee daf koy taaral ba pare di koy génne ca kanamu góor yi loolee moom dañuy gis kenn du d'accord ci loolu loolu daal moo tax ba jigéen bënn bakkanam def ca jaaro ba pare di dox ci mbedd yi loolu l'islam du d'accord ci loolu amma chrétien bi dugg cooto def suñ de croix chrétien la kay loolu moo gën a garaaw def suñ de croix ba muy def ab yéeféer la kii dugg ci oto di wax ne barke suñ diw kookee dañuy gis ne la muy def baaxul biddaa la waaye nag bu dee ci loolu rek lañ koy attee kenn du ko yemele ab chrétien ndax wax barke suñ diw génnewul nit ki ci lislaam kon teewul lañ naan julit la bu réeri diineem bu xamul waaye nag kenn du ko méngale ak ab chrétien wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw naam bismillah naam naam wala kulli xaal xam nañ ne internet bi moom bokk na natt bu ñu ci yàlla nattoo mooy non seulement am na ñu ciy wax njaaxum mais am na ñu ciy tasaare njaaxum parce que nit ki dana wax benn njaaxum boo xam ne bu ñu ko bàyyee woon rek ak mbir ma fa mu yem peut-être ne lu mat mille personnes au maximum ñoo koy xam mais da ngay gis gars yi su ko nappali TikTok ak yooyu ñu créé dañ ko jël tasaare ko fu nekk lu nekk ñu wax ko ci. almuhim diglu lu baax teru lu bon islam digle na ko ci ñaari charte benn yow mi koy def di diglu lu baax ci teru lu bon yàlla rek a tax nga koy def jublu ci ngërëmal yàlla ak yey nit ñi ñaareel bi it du xool mbaasa lii ngay def du gën a tasaare ak mbon su dee dafay gën a tasaare ak mbon loole yow waroo nekk di ko tasaare mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw xanaa ñu mujj ci mbokk bala rek ngeen jéggal ñu waaw bismillah waaw ala kulli xaal kiy dénkaane xaalisam ca bitig ba wëlbati ko waat ñëw di sàcc xaalisu bitig bi question yooyu dama jàpp ne amut waaw question yi li ma jàpp mooy amut waaw boo doon te ne ne dañoo gis ne am na du tee moom dañoo jàpp ne ab sàcc la ndax xaalis bi maadaama jox na ko boutiquier bi boutiquier bi loolee liquide dem la yor su neexoon fi mu ko joxee xaalis bi keneen di jënd mu wecc ko ko mu dem am déet mi ngi noonu kon la mu ñëw di ko jël xaalisu boutiquier bi la jël bu ñu bu fi àtte lislaam nekkoon ñu xool la mu sàcc mu lenn loo xam ne ni mat nam nisaab su boobaa dañu naan la nga kii dañuy dagg ab loxoom xanaa kay wa la nga xam ne moom moo moo ca des loo xam ne dañ koy delloo xëy na ay borom mi xam-xam bu doon mbir mi du xaalis ab ab matériel la mu ñëw dénkaane ko wëlbatikuwaat ñëw jël ko loolee mën na am ay subuhaat yoo xam ne attekat ya fekk loolu ñoo ci def seen ittihaad mais bu dee xaalis liquide moom xaalis liquide valeur am la ñuy considéré mais du këyit bi ci boppam wala pièce bi ci boppam la ñuy considéré mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ah naam wa sallallahu kon incha allah 1000 francs yi mbokk yi di barkeeloo par weer ci jàkka ji ku ko mën a joxe yal na yàlla fay ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka